ñu ñëw fi ci ndigalu sëriñ Muntaxa Mbàkke al xalifatul am ak ci tur ndigalu sëriñ Ahmadul Maxtaar Mbàkke xalifa Daara Xuddoos li ci bëgg a wax rek mooy monsieur le gouverneur màggalu Daara Xuddoos yàgg nañ kaa def wante tey dafa am beneen cachet boo xam ni dafa am importance mooy dafa daje centenaire téeméer at du caaxaan ca màggal gi tey du sëriñ Mountakha Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa général de Mouride moo jël engagement que màggal gi nii lañ ko war a feete ren ndax sëriñ Touba cent ans ba mu jógee ba ñu ko jógee Dakar indi ko fii dem ñaanoon doomam ji waxoon Cheikh Moustapha ne bis bi ko gënal ci àdduna mooy bis bi muy daje ak boromam te bis boobee moo am santa loolu tax ñu bëgg koo marqué cent ans yi sëñ Mouhamed mm, Mountakha Mbacké mi xalifa bi jël ci engagement bu rëy dañ ko war a organiser noo xam ne Sénégal gépp ak adduna bépp dañ ko dañ ko yëg loolu moo tax mu jël cent millions départ jël cent millions teg ci table lépp lu war ci màggal da ngeen ko ci def kon kooku bëgg na màggal gi ñu vulgariser ko xamal ko ñëpp porte ko à connaissance de tout le monde sëñ Amadou Makhtar moom it engagé wu ci comité bi yëpp ku bokk Serigne Touba rek dem nañ ci yow ñoom ñëpp ñu engagement comme kenn ku ne sa màggal ngay organiser kër bàyyi nga jëleel engagement noonu ku ne am ci gis-gis am ci engagement pour la réussite du Magal kon monsieur le gouverneur par votre gouvernance liñ fi wax yëpp dañoo bëgg mu amaat beneen diligence ndax lu ne bis bu ne ak bis bisam màggal yi fi daa jaar yëpp màggal yu rëy lañ yu baax lañ ndax waaye nag tey dafa am beneen beneen cachet kon loolu lañu bëgg mu mu mu am beneen taxawaay daal au niveau de toutes les tous les euh, services tous les services de l'État ñu ñu taxawa ci noonu euh, ñu bëgg tam màggal gi ñu koy lancé murit yi nekk ci àdduna bi yëpp biir réew mi ak bitim réew ak jullit yëpp ñu xam ne bis bi daa am neneen nuñ ko jëlee ak nuñ bëggee mu yaatoo noonu ca jubluwuñ ci nag feet walla du màggal du màggal mais ki nga xam ne daa liggéeyal borom ba mu sant ko gërëm ko may ko li mu koy may ca bi bi ca ba mu ba mu ko maye dafa wax ne ijal rujuu'i ila xawmi saadatina kon sëñ Tuubaa bi mu amee bi mu amee bi mu amee ndam daf ne fait de mon retour fait de pour mon peuple son peuple c'est le Sénégal la la félicité d'ici-bas et dans l'au-delà maye sama sama réew samay xeet sama mbokk sama liggéey bii ma def ba waree ñibbisiwaat mu nekk njariñu sama waab réew ñu am texe fii ci àdduna am texe ci àllaata kon kooku bu ko yàlla defee mu ñaanoon bisam boobu mi ñëw dajeek borom muy dem ba am téeméeraat ku def sénégalais wala ngëb julli rek war nga ci am beneen taxawaay boo xam ni parce que Sëriñ Tuubaa c'est pas c'est universaliste du du appartenance mouridisme wala ñu mel noonu Sëriñ Tuubaa ñépp a ko moom ndax lislaam la fi nekkal lislaam loolu liggéey ak liggéey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon le mooy mooy mooy mooy bés bi ñu ñaan daayira yépp nag muy daayira Serigne Touba yépp ak daayira Cheikh Moustapha yépp daayira Serigne Bara yépp ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ñu ngi leen ñaan ñu lëkkaloo xam ne mu Mountakha moo joxe ndigal ci bis bi ñu màggal ko ak sëñ Ahmadou Makhtar ñoom ñëpp daayira bu ne fa nga nekk ñëpp ak dëkk bu mën a doon muy États-Unis France Italie Espagne tout partout dans le monde fu fi daayira Sëriñ Tuubaa nekk nga lëkkaloog daayira waa waa kër Cheikh Mouhamadou Moustapha waa kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñu def benn bloc màggal ko organiser ko noo xam ni daaw ñu ko organiser loolu mooy kàcce bi loolu mooy kàcce bi ñuy ñaan fii nag ci biir dëkk bi ñuy ñaan fii ci dëkk bi ci senegal daayira yi li ma wax ci fe mooy ñi nga xam ne njaboot sëñ Baara gépp ak njaboot Cheikh Moustapha gépp ñoom lëkkaloo nañ waaye dañoo lëkkaloo waat ak njaboot sëriñ Touba kon daayira yi nekk ci biir réew mi ci daayira sëriñ Touba ak daayira eh, sëñ Mourou Moustapha yi ak waa xibaay ak waa wilaay ñu ñëpp ñu lëkkaloo nekk benn taxaw taxawaay boo xam ni kenn nekk lañu jëmmal muy sunu maam Cheikh Mamadou Moustapha wax nga ko màggalu bi dafa am benn cachet particulier moo coïncide ak centenaire bi moo tax dañuy ñaan rek seen service yëpp ñu intégré ko ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a am ci bés di seede rek mboor mi tamit ndax euh, ñu ngi bëgg yàgg si jaaree seede service yi nga xam ne ñoom ñooy impliqué wu ci cérémonie religieuses yu bari mën nañ seeteel quand même seen taxawaay yi nga ne am nañ ko ci secteur yëpp waaye li nga xam ne moo mooy liggéey bi dañ koy sas toujours muy kilifa yi nga xam ne ñooy autorité centrale ñoo ñuy demandé que ñuy indi yenn taxawaay ci événement religieux moo tax suñ jubsee rek comme ni ñu koy nii ñu daje yéen waaye wax nga ko incha allah rabbi ren dinañ ci intégré aspect boobu te tamit dinañ ko yëgal kilifa yi ba tax na nag lépp loo xam ne wàllu secteur la nga xam ne am nañ ci yaakaar ne ah foofu ngeen ñuy xaar pour ñu dugal seen loxo loolu nag partagé nañ ko te c'est des service yi ku nekk wax li nga xam ne mooy matuwaay yi nga xam ne jël ci tënk rek ci ndaje bi ci wàllu wër-gi-yaram on a juróom-ñaari postes médicaux avancés yi nga xam ne day am ñaari fan balaa màggal gi am ñaari fan après ak ñeenti ambulance mais loolu également ñu dool ci tamit dotation en médicament ndax mooy gunge prise en charge pèlerin loolu foog naa direction régionale de la santé dina jël matuwaay yi pour mun koo taxawee incha allah ndaxte nag lim bi mën na màggal comme ni ko waxee lépp loo xam ne ñu ngi ko def ci màggal bi mun naa am ren mu am yokkute kon loolu tamit foo naa ne su dee màggal gi dafa am innovation bu bees il aussi service yi jéem a def jéego bu toll noonu pour mën a fekk si euh, dayo dayo màggal bi su dee wàllu hygiène loolu euh, service d'hygiène dina ci lëkkaloog euh, mairie pour désinfecter yenn bërëb yi muy kër ak yenn pénc yi ku ne setit wax nettoiement donc ngeen jàpp le 19 juillet 2024 mu nekk journée phare bi nga xam ne Sonaged ne ci dugal loxoom indi per ak ay camion ci wàllu assainissement donc ONAS engagé wu na pour indi juróomi camion bilan si diiru ñeenti fan ak étoile yu waaye yi nga xam ne moom lañ dimbalee secteur dafa am loo xam ne commune bi da ci am compétence te ñi rafet bu baax teewaayu le maire suñu doon ak ak engagement yi nga xam ne jël na ko ci wàllu hygiène ci wàllu également assainissement ak wàllu cadre bi maanaam jumtukaay ñi nga xam ne mairie am na ko dina ko lëkkaloo ak li nga xam ne moom la état am ñu def loo liggéey benn ndax lépp benn objectif la ñu fexe ba màggal gi euh, gën na jaar yoon donc état ci loolu lay liggéey mairie également loolu mooy objectif am donc comité d'organisation yaakaar nañu ne ñoom ñëpp ñoo bokk benn kon kenn ku nekk la nga am da nga ko ci boole rek su ko defee liggéey bi gën a ñëw moo tax ñii ñaan am na si loo xam ne taalibe yi dinañ ci dooleel service yooyu soo jëlee ci wàllu nettoiement donc dinañ soxla ay limu doomu aadama yu takku kon loolu également ñi ngi ñaan daayira yi ak sëñ bi ñu wax ak ñoom ak taalibe yi kenn ku nekk génn ci bés boobu ànd koog mairie bu Touba Mosquée ànd koog Sonaged ñu boole nettoyer égal nettoiement donc bassin de Touba su dee wàllu ndox loolu foog naa euh, cam ci camion citerne la ñuy daagaan au niveau de l'effort bâche yi dëgg la suñu wax na am loo xam ne dina waaye lu tere tamit dañuy daagaan rek su bee ñëwee baax na suñu ñëwul maintenant ñu soog jël yi nga xam ne moom la comité d'organisation bi euh, am ndax tamit du doy donc wàllu ndox Touba dëgg la am na ci nag ay jéego am fan yi ndax situation bi gënoon a tàng mais fi mu ne nii am nañ yaakaar ak forage bi bees yi ñu jafe-jafe yi mun na gën a wàññeeku waaye nag lu muy bu gën moo ñu accompagner li nga xam ne moo fi kon yaakaar naa ne bâche à eau du doy camion citerne également doy na day gën a tax rek euh, ndox mi bañ a nekk jafe-jafe ci Mangoro daal aussi wàllu énergie Senelec yàgg na di ci liggéey mooy surtout rek ñu fexe ba courant bi bañ a coupé et ko mun na jël le relais waaye wàllu courant dafa laaj saytu moo tax ngeen def ci équipe de mbay loolu également Senelec engagé wu na ba dina bëggoon ay techniciens yoo xam ne ñooy nekk à la disposition du comité d'organisation euh, yeneen secteur yëpp nag mën nañ ko tënk ci ñaar benn bi mooy approvisionnement et contrôle beneen bi wàllu kaaraange ci wàllu approvisionnement et contrôle mooy ñu fexe ba marché bi ah produit yi mun a doy waaye tamit mu tombeek mu am ay njëg yu bees ñu fexe ba la ñuy jaay ci marché bi njëg loolu dëppoog li nga xam ne yoon bëgg loolu foog naa dinañ ci liggéey te incha allah ajjuma xam nañ ci ndaje ci des mooy demander service yi nga xam ne ñoo war a saytu ñu dem sur le terrain saytu également marché loolu c'est le cœur des métiers donc mooy seen taxawaay muy fexe ba fépp foo xam ne ay mbooloo ñu fay daje ñu mën a nekk ci jàmm sàmm leen également sàmm seen alal muy wàllu police. muy gendarmerie ci wàllu dem de dikk bi sur les autorités également sapeur pompier donc loolu également dinañ jël seen matuwaay ba lépp loo xam ne taxawaay ci màggal bi incha allah ñoo ngi def foofu mais sapeur pompier également ñu ciy bàyyi xel ndax le 26 ou le 27 juillet dina fekk ñu nekk ci wàllu nawet ñu intégré ci également évacuation des eaux pluviales balaa mu leen bett maanaam muy sapeur pompier CONAS nañ jël également libéré yenn yoon yi nga xam ne ñàkku dina am ay data peut-être pour soo ko defee dem dem déglu dina gën a yomb donc ñu ngi ci tàmbali ci liggéey mais nañ ko ci intégré te boole ko également parce que un mois lay doon avant le gouvernement bu baax donc teel a commencé opération yooyu moom moo liggéey